wa isaa jafaaka su fekkente ni kilifal gi beccangal na la faxtamil na nga yenu jow fa toxoo aw becc ngalam becc ngal gam la def maanaam rusloo gam la def na ko yenu te te muñ ko waxtasir ilayhi ta nga dogal ko ngant wala tuwajjihu bu ko jubalee bi basarika say xoolukaay maanaam say bët ne ko ko jàkk rek tëxef wala tuksiril nasara bul bari loo xool ilayhi jëm ci moom ndax fa saalika naka loola laysa bi adabin nekkul ay teggin wa in minal majlisi su fekkente ne yéene nga ca jataay ba xaawal te xiyaam nga bëgg a jóg taxaw maanaam bëgg a jóge foofee te fekk yéen a ngi toog faxum na nga jóg àla la baaxatin ci ñaw la baaxatin ci ñaw maanaam tenkoñ jóg ndànk ba suuf sa bañ a naaw mbaa nga raam ndànk arrière ba sori doog a taxaw noonee lañ ko soxlaa muy jugg ànd ak ak ñaw ànd ak ak taalibi ànd ak ab yaraki teggin raam ndànk ba sori doog a taxaw loolu mooy la baaxatin waxtal xiyaam yi na ko jëfee waxtu ba ngay taxawee waaye bul tëb rek ni përët rek ba pënd ba jóg ah, ah wala takkun bul nekk min sàmm foofee saariya turaab jóg jógin woo xam ne boo ko joxee boo ko jógee da leen di xëpp suuf sa saariyatu raab mooy buleen xëpp suuf ngay xëpp suuf sa àlla wujjoohim ci seeni xarkanam loolu kat li xul fi sawaab lu wuuteeg ak jubla kon bu ko def mukk wa in xadarta bu dee sa kàttan may na la ko laa takkun bul nekk saa naw mi di boroom ak nelaw bàyyi na sawi yaxasatin ci diggante mbooloo moo xam ne nelawuñu fil xaw mi ci aw nit aw nit mbooloo mu toog nelawuñu nga dugg ci seen biir tëdd fa di nelaw mu ne boo ko mënee bu ko def ndax fa innawoo naka nelaw yooyee ci biir nit ña laysa minal adaabi bokkul ci ay teggin is ngir fii nekk na ci nelaw ci biiru nit maa loo xam ne fii ma nga ci nelaw ya minal itaabi loolu mën na la jural yeddeel yax ni li bëgg wax mooy na minal adabi bokk na ci ay teggin alasani yey ngeen ji aji rafet an tahtariza nga wattandiko min an tas riya ci nga xëpp aturaaba suuf sa ala wujoo il jullo saa i ca xarkane mi way toogaale ya booy jóg sa aratta bu dee bëgg nga alxiyaama jóg taxaw minal majlisi ci jataay boobu da ngeen faa toogoon kon booy jóg na nga jóg jóg ànd ak tenkoñ ndax fa inna aratta saalika boo namee loolu maanaam jóg faxum na nga jóg rek bi la baaxatin cig ñaw ngi jóg gu ànd ak ab yar ba nga xam ne nit ña suuf sa leen xëppu baa nga raam ba sori leen doog a jóg bi la baaxatin wala baaxatu baatab la baaxatu nag kal azaaxati mook azaaxati was nan ñoo bool ko ay maanaa was nan ci màndaxe maanaam boo leen di nattale ñoo bokk ay mbir wa max nan ak i maanaa wala tamura bu romb it alal wujuhi ca kanam nit ña aljulusaay ñay waroom ak toog wa minal adabi bokk na ci ay teggin an laa tanaama nga bañ a nelaw bay na mutayaqisiina ci diggante mbooloo moo xam ne nelawuñu in istata in boo ko mënee in istatahat ndax fa innoo naka nelaw ca biir mbooloo ma laysa minal adabi bokkut mina ci teggin lay laysa minal adabi bokkul ci ay teggin nelaw ci biir mbooloo is ngir xat taxruju mën na génn min ka tukkee ca kookee di nelaw ci biir mbooloo ma réexun ngelaw wala tasfuru te du yëg bii ngelaw loolee génn ndax li ànd la ay nii naka ay gët wikkaa o duburi ñooy tëj buntub suuf kon bu bët ya nelawee rek buntub suuf day daal di tijjeeku moo tax nelaw ci biir mbooloo wóorul wax lam na nga xam ne bi annal irsa naka xër li taxaami ci aw ñam minal muujibaati bokk na ca lay waral al xëri gàcce wal malaami ak yeddeel wa man yualliq képp koo xam ne fas na alhimma ay itteem bi taxaami ci aw ñam wal farji ak bërëb ak tuurukaayam ndox lañ cay jëfandikoo nga fas sa sam xol rek fa huwa kookee aljamihu boole na almazima mboolem xeeti ngàññe wax boole na ko ndax loolu rek képp ku ci say mbir daal lépp luy xeetu ngàññ rek boole na ko kon asbuka na la doy min ca loole muy lekk maa loo xam ne yuqiimu di nga ko dëgërale sol ba sa ndigg taqawiyan ngir ragale ko yàlla jaamoo ko yàlla rek doy na sëkk di kay tutiixa ngir nga toppee loole nga mos rabba buur bi di ko jaamoo yàlla waaye rek di lekk ba ne dang rek di lekk bay rokkos rek ba booy wax sax doo mën a wax ngay xiixat loolu musiba la yonoon ci la